asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum mbokk yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant raq la war a mag la ci Youssou Ndour Seynabou Ndour moo def déclaration bu toj ca Medina lu ko waral tey nañ dem seeti ki nga xam ne raq la war a mag la ci Youssou Ndour ñu naan ko Seynabou Ndour Abidjan ak chocolat fan lay mujjee ndax ñaari fan moo des karam bi daa jeex Pa Sonko nee na réew mi yëngu na te moom xam na lan mooy tax réew mi ànd ak dal nañu seeti Pa Sonko Macky ngay woote dialogue ba mu toogee nag ki nga xam ne mooy kilifa bu mag gi di sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay ñëwal kaay ñëwal mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay kaay semaine copain mu yóbbanti ci yow <laughs> waaw. kenn yóbbu da nga évadé di. non non bilaay. waaw mbay. waaw tey man ni laay taxawee. mbay. parfum bii ma tiim. yaa ngeeg moom war a yoroo maa ngeeg moom. style la tudd. waaw bi ci boppam. waaw style la. waaye feem bi ci boppam moom mooy jamaa. waaw jamaa. ñu ko couleur bu orange la. nee naa la bis bi xoolal ak plateau ku caasoo jamaa moo tax muy leer. jamaa waaw soo ko musul gis jàppale mun nga ko tuuroo waaw mbay waaw benn waaye nee ma mbay xet gu neex yu muy yendoo waaw di ko fanaanoo waaw mélange de parfum yi ngay bii nag moom mooy jamaa sama fóotkat bi nee na day sawar waaw di ma fóotal te parce que su may fóotal xet gu neex bi muy la ma ne ko non non loolu mais xam nga sànq nee na nga da nga ànd ak allure waaw man la allure nag pour jigéen la waaye jamaa bi pour jigéen la mbay bu xonk bi nga ma jox nag moom mooy style glamour waaw glamour bii pour jigéen la. waaw mais nag lu neex jigéen rek moomu ko mbay. waaw yow man man moom. waaw yow ma ne góor ak jigéen bu ñu neexee utiliser ko. ma ne xaw ma xoolal. waaw bu ñu bojjee bu ñu sox man moom sama yoon. kon glamour mooy borom kubéer bu xonk bi. waaw style glamour. damay fobeere rek. mbay. waaw. nga xam ne mooy al euh, énergie. waaw énergie maanaam su ma feccee ba pare wala su may waaxu. waaw damay def damay damay def allure. waaw waaw. allure sooy waaxu ma ne. su may waaxu. waaw. ak man daal man ma bañ a sonn rek. yoo daal al yoo daal yoo daal énergie daal. moo lay yokk énergie. waaw ak xet gu neex. waaw mooy bu verte bi mbay. mooy bu verte boobu. teg ko nii gars yi gis ko. waaw man du ma si doyal. mbay. waaw bi ban la. jëlal boobu. <laughs> li nekk ci énergie. waaw moo nekk ci allure. waaw bii pour jigéen la. waaw jigéen nag bu boolee énergie. ak allure kenn du la attan. waaw kenn du la attan parce que ñaari force la. waaw mbay kon bii moom mooy couleur bi nga xam ne. waaw dafa rose. waaw style. bii nga xam ne mooy allure pour jigéen. waaw xam naa kii moom da nga koy may. sa xarit benn xarit nag nee na moom xamatul ban moo si dàq mais nee na bu nekk day si jënd benn def ci mais moom la ma benn waay wax. waaw ne mbay su ko rombee xet gu. waaw maar day taane moom nga yor. waaw nee na bii nag mooy black waaw. waaw mbay black bi mooy bu ñuul kukk bi. ak jigéen bu nañ ko jël. mais spécialement pour góor la. waaw mais benn femme moo ne moom black bi. waaw ko neex te pourtant jigéen la. black mooy bii style black. black mooy boobu. très bien. léegi ñu dem si ban. Euh, pare nañ ci parfum yi. waaw non des na space bi nga xam ne góor ak jigéen ñoo ko bokk mhm. xam lu tax ñu def ko loolu waaw parce que xet bi waaw góor mun na koo utiliser jigéen mun na ko utiliser mbay yaa ngi rey waa TFM ci xet gu neex ah? waaw ah parfum bi waaw chaque jour day manqué benn chaque jour day manqué benn kon man man jaaxal na ma kon jigéen ñi am na lu ñu si gis non xam nga tax muy manqué waaw parce que lu neex ku ko romb gis ko waaw lu neex mais mbay suñu paree ci parfum yi waaw dellul sa place <laughs> voilà. très bien. mbay maa ngi soog a xam nag lu tax sa yaram tàng parce que bi nga xëyee meew l'écran moom ci boppam moom nga dëkkee sama bët moom may gis nga koy naan ci bu ndox mi ak pëndëx bi naa la xamal leen lan moo waral l'écran tey laa la koy wax waaw l'écran kenn du la kar l'écran kenn du la karaate waaw l'écran <laughs> ah, jam da lay leeral da lay leeral da lay leeral nee naa man nit koo xamante ne jigéen yi sax nee nañ ñoom taamu nañ si l'écran parce que meew mi nga xamante ne suñ ko naanalee dafa pire nee nañ day sëkkal seen karaw ma cent pour cent meew cent pour cent meew waaw raxul dara amul ñambi amul dara waaw kii du meew ñambi de eh. original la l'écran waay mbay waaw soo jógee ci bi. waaw téléphone bi nga xam ne mooy kam. mbay mbay oh, bi nga xam ne moom mooy CX. waaw xam nga ko. waaw xam naa ko. la boo xam ne. waaw àddina moom la ñuy wër. waaw benn. Mhm. njëg li nekkul njëg loo xam ne boo ko déggee day yóbbu sa fit. waaw ñaareel bi kenn mënu koo sàcc ndax yaa koy codé. sa loxo moo koy ibbi. waaw sa nopp moo koy ibbi. sa bët bu la neexee sa reetaan sa moo koy ibbi. ah sa compte de sa sa loxo loxo. waaw xam nga yow li ne sa loxo bi waaw nekkul sama loxo bi waaw xam nga ko. wax nga dëgg donc yoru yaa ko mën a ibbi. ak yeneen feem yoo xam ne. waaw juróom benn flash. waaw mbay nga nekk cent un kilomètre. waaw mën naa laa photo di la ñor di bëgg ñëw mën la tar jàpp. waaw la kon gën a gën a kuréel yi am nañ ko war a leb. photo espion. mbay bii mu ngi tudd Camon CX. Madaar ak Noura. ñoo bokk ndey ak baay. waaw soo amul njëg bii. mën nga koo am ci li nga xam ne mooy pëndax bi. sa téléphone a ngi sonné. nee nañ ma daal. waaw nee nañ ma daal. waaw ah waaw. dafa baax. waaw ma daal day xam. waaw ma daal fekk du xolal ngi noonu rek day xam. très bien ah, du gaaw a jóg xale yu jigéen ñi nañ ko. du yàq ay loxo. Ah. day liisal ay loxo. Ah. kon ma daal jërëjëf. madaar ak nuuraa madaar soo ko amul ci liquide mën nga ko am ci pëndax bi waaw mais waaw yii yëpp nag ñoo leen may seen émission Kouthia Show tàggul. Aziz Ndiaye dama gis. waaw ah, ndeysaan mbay tàggul mbay tàggul tàggul tàggul. Soumboulou dama gis. kan mbay tàggul. Soumboulou mbay tàggul foo foo jëm mais eh, damay dem Canada. très bien. bu ma kenn kii ni ma waa Sénégal dégg ngeen. ndeysaan ndeysaan sa xarit la. boo <laughs> oh, boo ñëw indi ko chocolat indi ko chocolat booy ñëw xool tal tal xool eh, Pape Sila booy. Pape Sila booy jeex. marocain marocain. et eh, pas marocain eh, la marocain eh, suñu sponsor yi nga xam ne nag mooy style glamour ak black energy jaama euh, ak glamour ñooy ñooy euh, yi nga xam ne moom ngeen exposé fii ci table ngeen gis ko defe naa ne yaaw gervé mu ngi koy ramassé lait entier bi nga xam ne mooy l'écran am na bu ndox am na bu pëndëx waaye téléphone Camon CX bi nga xam ne nag moo mucc ayib wax nañ leen incha allah dina ñëw dans la semaine gën leen ko leeral ak techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, techno pour ñu gën ñu wax li nga xam ne mooy paramètre nekk ci biir Madaar bi nga xam ne ak Noura ñoom ñoo ànd soo ko amul ci liquide am nga ko ci pëndëx ñoo leen di may seen émission Kouthia Show mbokk yi nag ñu fàttali nag euh, ki nga xam ne mooy tonton mag mu nekk ci réalisation ba toog moo nekk ci son ba yaaw gervé benn jëm ñaari caméra kon mbokk yi nag dañuy nuyu suñu papa Euh, sëñ Sidi Makhtar Mbacke di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak suñu maam euh, maam Abdou Aziz Sy Al Amin di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sëñ Mbaye Sy moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di nuyu Thierno Bachir Tall suñu baay la nekk ca Louga yàlla defal ko jàmm ak Thierno Sama Sa Mourabi Thierno Mouradi Muntaga Tall alaaji Thierno Bokar Alpha euh, Ba Serigne Habib Gaye Thierno taal Tall alaaji Thierno Abdourahmane Bari Thierno Mawno Aw di nuyu tamit alaaji Ousmane Ndiaye Waliyu Kamin ak soxnam Adja Mam Boussa Cissé ajaratu Euh, Mambousso Cissé ñu ngi koy ziar bu baax waaye tamit di nuyu suñu papa El Euh, Bassirou Bara Mbacké nekk ci HLM Guédiawaye sëriñu Gofal ak Fa Abdou Gueye ñu ngi leen di ziar di leen nuyu waaye sëñ Abo Mbacké ibnu sëñ Fallou Mbacké di xalifam nekk ci Touba moom ñu ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm ak wàccaay euh, kaso rajab bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin sëñ Abo Mbacké dundal sa dund am na njëriñ lool di ziar tamit raqaja sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu tamit sëñ suñu baay gi nga xam ne nag moom mooy euh, sëriñ Babacar Abdoul Aziz Sy di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu waaye tamit sëñ suñu papa Alaaji Seydou Sow dëkk ca Passy di yeewoo fii ci Dakar yàlla defal ko jàmm di am mbégte contentement ci Serigne Mamadou Sougou Wadane nekk ca Kébémer ak mboolem taalibem ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit maître Fatima Fall responsable politique nekk ca PDS dëkk ca Ndar cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye ñoom ñëpp ñu di ñaanal jàmm waaye tamit di dem ci dëkk bi nga ne mooy ñànk idi di nuyu Thierno Mamadou Adama Gaye xalif bu Thierno Adama Gaye nekk ca ñànk idi ak suñu baay baay Aliou Diagne ancien combattant Euh, nekk ca ñànk di ñëwoon tey nag ci Dakar ñu koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram suñu papa bopp nag ñun ñëpp xam nañ ko di Serigne Mansour saar dëkk ca Budi di yeewoo ca Tiwaawan moom tamit ñu ngi koy ñaana fan bu gudd wér gu yaram ak suñu yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum nuyu ko bu baax di ko ñaanal tamit fa mu nekk euh, ci àjjana yi gën a kawe yàlla yokku leeram waaye tamit di am mbégte ak ci képp ko xam ne yaa ngi dëkk ca Tivaouane rawatina nag euh, taalibe Serigne Mbaye Sy Mansour yëpp ñu ngi leen di ziar waa binaa ko Chérif Chérif Atab Aydara nekk ca Casamance nuyu nañ ko ak Ibrahima Mané porte parole ba Serigne Ibrahima Kunta balaa ñu koy nuyu dañuy nuyu xalif kunta kunta yi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram soog cee teg ki nga xam muhaddamal Moustapha Kunta ak soxna soxnam ajaratu soxna Biga Gueye ña nga foofu euh, ci euh, euh, ca Ndiassane yàlla defal leen jàmm ak xéewal waaye tamit Serigne Sidi Mbacke alxuraan nuyu nañ ko ca jàmm gën jagsaaw ak Amadou Diallo Talibe lom Talibe ñu ngi koy gërëm di ko sant di am ca contentement bu mag tamit waaye di nuyu ki nga xam ne suñu wërala la Serigne Momadou Diop nekk ca. Medina dëkk ci rue 41 borom gànjool ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram nag yeeg xar yi moo ko moom di ko saraxete lépp teg ko ci yoonu ah, dimbale néew di doole yàlla ko yàlla defal jàmm mbokk yi nag fi ñu jëm mooy seeti na bu Seynabou Ndour bu nduur nag moog Youssou Ndour ñoo bokk ndey ak baay bu nduur ak yusu Ndour ñoo bokk ndey ak baay mais moom wul la APR la nekk ci Macky Sall la nekk dafa taxawal benn GIE boo xam ne démb ñi seetaan TFM yëpp gis nañ ko mu def benn discours di gërëm seydu Gueye di gërëm tamit Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale moom nag bu nduur lakk na daay ja ca Medina ñu dem xooli Seynabou Ndour lu tax mu lakk daay ja ak lan moo tax daay ja lakk ca Medina Seynabou Ndour raq ci su Ndour waaw na leer kay waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf di secrétaire ci gouvernement bi jërëjëf tey jii nag ah lu war a indi ay financement ki mu àndal ah sëy na bu tey nag mbooloo mi ni ngeen toogee nii toogaay yu rafet na waaye nag ku ñëw ku mag nga ñëw kilifa ku mag ànd nag jigéenam Seydou vous avez la parole tout d'abord euh, je vous remercie toute la population de Médina je commence les salutations par euh, notre euh, sœur Ndeye Seynabou qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans notre politique. La dernière fois, elle avait mobilisé 50 personnes et nous l'avons vu. La deuxième fois, elle a mobilisé 100 personnes. Eh, et maintenant, à l'instant où je vous parle, elle a mobilisé 500 personnes. donc nous avons jugé nécessaire nous la gouvernement du Sénégal et nous le partie APR de financer Seynabou Ndour avec une somme considérable pour qu'elle puisse mener à bien ses activités avec les femmes de Médina euh, ma ñëw ci ci olof ndax Ndeye Seynabou mi ngeen gis militante APR la yor GIE bu mag fii ci Médina di ko doxal di jàppale le président Macky Sall mhm. bi mu koy jàppale bu baax a baax noonu ñun nag ñu gis ne la dernière fois mobilisé na cinquante jigéen yoon bi ci topp mobilisé cent jigéen waaye yoon bii ñu ñëw ñun ñëpp gisandoo nañ ko mobilisé na téeméeri jigéen ah juróomi téeméeri jigéen cinq cent personne moo tax ñu ne dañ ko war a financer jàppale ko ngir mu mën a jàppale jigéenu Médina jàppale le président la République jàppale le président Macky Sall ci li mu bëgg liggéey ci réew muy Sénégal émergent jërëjëf nday seena bu enveloppe baa ngi nii ñu jël photo ak journaliste yi ñu gis enveloppe bi xam ne son excellence moo la ko jox ngir nga jàppale ko jigéenu Médina jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup waaw kon géwal waaw ndey sa lum bu booy ilimaanay sa baay ndey soxna sa yaay yàgg ko buuba jërëjëf jërëjëf Thiamas financement bii nga xam ne moom laa jot ànd ceeg jigéen ñu jooma ñaaw yi te duñu ay yambar ndax yambar doon na yàcc na yasar na yasar gan ñu am mbégte nag tey wane ne financement bi dina jaar fi mu war a jaar ndax cinquante personne laa ibee nga ñëw ñu dawalaat encore tuuti fin février amaat cent personnes nga ñëwaat léegi am nañu cinq cent personnes nga ñëwaat jox ma lii mooy wane ne Médina ci boppam bokk nañ ci ñi nga xam ne mun nañoo mobiliser Médina teg ko sa loxo yow Seydou Gueye. président Macky Sall nag mérité wul deux mandats trois mandats la mérité. jërëjëf jot na enveloppe bi lii mooy wane ne jigéen ñi tey Médina yëpp dinañ kontaan tey xam jigéenu Médina yëpp tey dinañ am sag ndax lii seen sag la. ñun bu doon xaalis rek la mm-hmm. mun nañu toog ci li ñu am suñu wërsëg ndax yàlla may nañ loo xam ne bu ñu xëyee ndékki añ reer xaalis bii nag dañ koy def delloo ko ci jigéenu Médina yi nga xam ne dañoo taxaw temb pour jàppale président Macky Sall man sey man bu Ndour dama ne Macky Sall mérité wul benn mandat mérité wul ñaari mandat Macky Sall ñetti mandat la ndax président Macky Sall soo gisee man ma téye ko jour bi nga xamee ne gagné na élection yi dafa bàyyi kër yu bëri ñëw ba sama kër yaay ca Médine euh, Sacré-Cœur sama yaay toog sama papa toog samay frère toog mu daa dee gërëm Youssou Ndour ba daa de koy wax ne lépp lu mu am tey ci deuxième tour bi yàlla Youssou Ndour dugal na tey te ñun nag wax dëgg yàlla ay gawlo nañu piir sama yaay na ma kii jëf ju rafet gi mu jëf wax dëgg yàlla na ngeen taxaw te jàppale ko dama ne bu du lool sax dañ koy jàppale ndax dama ne ñëpp xam nañ ne fii ci Medina. waaw fii nañu juddoo mosu ñoo daw dellu ginnaaw. jigéen ñu jomm ñaaw yi nga xam ne financement yi seen loxo la jëm. tey mu am ñaari ministre yu fi taxaw. Amadou Ba ngi toog. Seydou Gueye ngi toog. te économie bu ñu ko waxee Amadou Ba tax. kon nag mënu maa wax te duma wax en français. samay français soriwul waaye danaa wax. su ko defee président Macky Sall xam na ne. financement bi tegu na sama loxo. ma ne bonjour la population Médina moi la Seynabou Ndour moi la Seynabou Ndour la dame Seynabou Ndour nous tous femmes de Médina nous tous d'accord de Médina nous tous derrière de Seydou Gueye moi la femme moi la Seynabou Ndour moi présidente femme tout femme derrière moi tout derrière moi derrière Seydou Gueye tout derrière Seydou Gueye derrière Macky Sall la argent dans la enveloppe moi la Seydou Ndour la argent indi histoire ngoone kaay gàgganti ma li ñu waxee kii la waxee lii ci français laa om Seydou euh, euh, laa om euh, laa om laa om Seydou laa ministre Seydou Gueye laa la la la la la jusqu'à argent dans ma main ma ne moi la Seynabou Ndour femme tout derrière moi moi derrière tout tout derrière Seydou mm. Seydou tout derrière Macky la mandat ma la mandat de Macky Sall la troisième mandat la femme de Médina moi la Seynabou Ndour moi la sœur moi la tante moi la badiane tous les mères les femmes les vieux les vieilles derrière Seynabou Ndour Seynabou Ndour derrière Seynabou Ndour doucement doucement bin bin tuuti tout la monde derrière moi la monde derrière Seydou Gueye la monde derrière Seydou Gueye la monde tout derrière man fii laay tàggoog di leen jox rendez-vous incha allah fin du mois bii nag dinañ leen may concert boo xam ne bu keroogee ngeen xam ne jigéen ñi képp koo leen ma gis ci waykat bu jigéen di ko gis bu soobee yàlla lu tax. bii na. waaw waaye prochaine bii nga xam ne moom la waaw ah, ah. li ngay wax. xam nga ko am problème. xam nga ba jaar. yaa ngi may feeñal de. Eh, yaa ngi may feeñ ah, de. waaw lu xew. xam nga ndax la. waaw. a caamaas nag bu ma la yàqal artiste waaw. kontaan ngeen mbaay i waay samba way bu ma wayloo waay bu ma wayloo bu ma wayloo waay am waay bu ma wayloo giwal bu ma wayloo bu ma wayloo la Seynabu Ndour la chanteuse kontaan ngeen kontaan naa i waay ay ci leen waay yéen a may wayloo yéen a may wayloo Bible. jaa ngeen jëf xale yi xol sedd tin daal gis naa seen taxawaay dem leen bul leen ragal ndax yéen a kër kër yi di ko nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal kontaan naa yéen ndaw yu góor yéen ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen ma daw am na ñu mbégte ci contentement bu mag ànd ak sponsor yi nag style ci parfum yëpp nag yaaw a gervais gis ngeen ko jël na ko gros plan ci façon bu nekk style nag am na allure am na black am na énergie l'écran baa ngi nii ne fàng ngeen koy gis euh, ni ko mbay waxee rek am na ci meew am na ci pëndëx canon CX bi gis ngeen ko Madaar ak Noura am na pëndëx bi mbokk yi ñoo leen may seen émission Kouthia Show waaye tamit di nuyu bébé Mouhamed Ndiaye nekk ca Nouakchott ak euh, yaayam madame Ndiaye papam ñu ko Cheikh Omar Euh, jàmbaaru tari dëkk ca wakaam Wakam cité Asegna ñu ngi koy gërëm di ko sant maire Fatou Mbaye bëgg fàllu di bàjjanu Karim Wade responsable politique ca daar Khoudous ca Mboro ak Thierno Moustapha Sow commerçant la ca Sédhiou quartier Dembaya ñu ngi koy nuyu bu baax di am mbégte contentement ci Serigne Fallou Mbacké docteur di ko ñaanal jàmm ak wér di ko ñaanal fu mu toog yàlla defal ko jàmm euh, sëñ fallu euh, docteur fallu Samb nekk ci. Louis Pasteur la référence foofu ca clinique ba nekk ca Tëngéej yal ko yàlla may jàmm ak tout le personnel defal leen xéewal ak jàmm nuyu nañ leen gërëm leen bu baax journée culturelle Serigne Cheikh Ridial Seck wax naa leen la 15 avril lay am ca Colobane sëñ bi nag mu ngi ci woo mboolem taalibe boo xam ne rek wax dëgg yàlla am nga yaakaar ci yoon bi waaye ngay wëllëreem war a ngay xaritam war a nga nekk murid sadiq na nga ñëw la quinze ca Colobane te dana am berndeel waxtaan waaye tamit tànk képp ku fa jox tànk pour dem fa tànk yi ngay dem tànk yiw lay doon booy ñibbi tamit tànk yu lay doon te lépp lu ñu fa ñaan rek yàlla suñu borom dina jëf sutura ba lépp antu sëñ Rijaal Seck yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér koy def ay édition yu bëri mu koy teewee ndax ci gën a mën am xel dal ñu ngi koy sant di ko gërëm gàmmu Serigne Babacar Sy rabial taala anhu samedi bii le 15 am waaye alxames am na xadar bu mag bay am ca lycée Charles de Gaulle ñu ci ñaan nag képp koo xam ne ngi ci dem na nga sol lu te yor comportement bu yiw ndax borom bés bi ci boppam moo ko yiwalee noonu yal yàlla may ñu fekk jàmm te tal ko Serigne Mamadou Diop borom Médina borom Gandiol suñu xar la dëkk ci rue 41 moom sama xar la sama soppe la euh, yàlla dafa def nit bu nekk nit ku baax di Serigne Mamadou Diop euh, dëkk ca Médina rue 41 borom Gandiol ki yor sarax nag yeeg euh, xar yi nga xam ne day dimbali doomu aadama yi te yàlla ta mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ñooñu ay soppe nañu Mbay Thiaw Carrefour Xaadim Thiw Carrefour ak Jaari sopp na bi Ndey Jaale Ndiaye sopp na bi Joojo Mbay artist sopp Kouthia Show Euh, soppee Kouthia moo Modou Saari nekk ca Grand Yoff ak nondisti de la part de Thiamas bu Kouthia moo leen di nuyu Abdouli di gendarme ñu ngi koy nuyu ak mama li lii Ablaye li nekk ca Tëngéej de la part de Yàgg teefe moo ñu yónnee loolu ñu am mbég ca contentement nag di nuyu bu baax ki nga xam ne moom mooy Fatima Evans ñu naan ko Fatima Diallo nga xam ne barki démb moom la tontoom ak weeroon fii muy jaabante Euh, moom nag sopp Youssou Ndour rek moo tax xam naa loolu jóg mu fecc waaye moom bokkul manquant manquant dëgg yi ñu ngi fii ci toog di mooy ñaar en tout cas daal jàppale na Fatima Emerse ku baax la jigéen bu mën liggéeyam la maa ko wax maa waxoon maa waxet Faatuma investir jigéen bu baax la yàlla ko yàlla defal jàmm koo xam ne nag war dem ku mën métier am la te 5 4 3 2 boobu moom muy def noonu nga koy def nii rek mais réalisatrice internationale la te ma ngay préparé dem tv cinq yalla ko yàlla musal ci cat ak làmmiñ du jigéen gu mën góor Fatima Evans émission bi yëpp yoo nañ ko may soppe Youssou Ndour la bëgg Youssou Ndour la tax muy fecc waaye leneen taxul kon Fatima Evans yal na yàlla guddal sa fan may la fan bu gudd ak gu kontaan nañ ci yow Jibi Ndiaye chauffeur camion <laughs> mbedd Fass waa yow waa yow Jibi Njaay bi chauffeur camion mbedd Fass xanaa moom mbedd ak lay daw ñu nuyu ak Bougane ba Bougane Gueye Dany de chauffeur camion euh, François njoor ñu ngi koy nuyu depuis Diouroup Jean-Paul Ndior Demba Balde depuis Diamaguène et toute l'équipe de football de Sali Sosef de la part de Mohamed Dieye di Jabel mu ngi leen di nuyu di am nag mbégte contentement ci grand meeting de Mansour Sow samedi le 15 à benn barak à partir de 15 heures agent de la police de Guédiawaye yi ñu ngi leen di nuyu ñoom Ousmane euh, de base Euh, ñu ngi koy nuyu Alioune Diagne ak euh, kookoy chéri Anta Ndiaye euh, Jogamaay fay sama xarit la Alassane Diakhabi ak Selbe nongo ñoom Yacine Niang jabu Badiane et tous les agents yi nga xam ne ña nga ca police su Géejawaay ñu ngi leen di ñaana fan bu gudd gu yaram yàlla defal leen lu kawe seen njort ñoom Bay la wan nekk ca Daaru Salaam Thiès Lat Cissé et la famille wan Saada wan ñoom Soxna Diouf nuyu na leen ak waa groupe WhatsApp Baleer depuis Grand Thiès ñoom daam Ndiaye Lamine Kane Adja Sène et tous les hommes Euh, de la part de Amady Techno mu leen di nuyu Amady Techno ñu ngi koy nuyu ah suñu xarit la ah. moom tamit suñu soppe la mbokk yi nag fi ñu jëm moom mooy dem seeti pas Sonko mi nga xam ne dëkk bi dafa yëngu teg gis ngeen Serigne Abdoul Aziz si Al Amin moom Macky Sall démbal tëju nañ deux a temps ak suñu papa sëñ Mbaye Sy Mansour lañ doon wax nag ak Macky Sall yàlla rek moo xam waaye Macky Sall ba mu génnee de nee na tàll na ñëpp loxo pour jalaw xëy na nag dañ doon waxtaan ci li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi ak maanaam li indi jàmm ci réew mi kon mbokk yi ñu seeti Pa Sonko sonko mandinkoole sonko soose sonko mandinkoole sonko soose ah ah aleykum maaleykum salaam ala mana tiara kerala ala barka mandinkole sose mandinkole joola bunkili seeju afiñam perisak ñafulen fale dekelawa mandinkoole bunkili siara jantaale mandinkoole faati eh. jaata eh. jeeme eh. saane maane kasamasi nkolo cole kana solo kombo réew mi dafa yëngu man sant bu baax sëriñ bi sëriñ maam Abdou Aziz si Alamin sëñ Mbay si Mansour ak sëriñ bi ne eh, Touba eh. yëpp sëriñ yëpp eh. ñu wax am Sénégal moo gën Macky Sall moo dem waxtaan ak sëriñ bi sëriñ na am moom man maa soppi lu nekk melentaan pour déglu ndax soose su ko neexee nekka nekka si xam-xamu soose su ko neexee nekk melentaan yàlla may na loolu soose dugg naa ci biir dégg waxtaan bi yépp sëriñ bi waa na ko na waxtaan na def dialogue na def jàmma ndax lii dafay jeex te Macky commencé na lu baax lu bon waru ko yaaxal bu duggee ci lu baax na génn ci lu baax sëriñ bi nag moom wax na ko jàmm moo gën lu ne waaye Macky bi mu génnee wax na ne moom jàmm la bëgg kon nitu jàmm la amul problème de Macky ah. amul problème parce que papa mi ñoo ko woo ah. dugg ak moom ci nekk ah. ak moom sëñ Mbaye Sy Mansour mu wax ak moom na ko fii boo fi lii boo ko defee yàlla dina may jàmm ndax ñooñu ñu ko wax mukk defal fitna duñ ko mu wax mukk defal lii lu bon ndax ñoon yàlla moo leen baaxal kon léegi moom bu génnee tàllal loxo ah. hmm. bu kenn ko rusloo jël leen loxo bi ngeen ndax élection ñaari at moo des buñ ko waxee nii dafay sàppi suñu nopp yi Macky Sall uh-huh. nit ñi amuñu problème na fexe ba ñépp bu ñu xiifee ñu lekk bu ñu bëggee naan ñu naan mm-hmm. ku bëgg a branché courant nga branché boo demee ba Sédhiou mm-hmm. Bounkiling mm-hmm. am na dëkk yu ndaw yu nekk foofu depuis Senghor gisuñu courant ah. loolu baaxul te léegi portable fu ne lay ne ci àdduna seen doom yaa ngi ñëw Dakar bugg wax ak doom dumu mun a wax ak doom ndax courant amul ndoxu teen ñu ko naan passé na loolu yëpp Macky war naa jóg ci loolu. loolu dekk na loo xam ne day tax réew mu dem. Mm-hmm. waaye. Ah. man Sonko. Ah. xale. Ah. mooy tontu xale. mag mm-hmm. mooy tontu mag. Ablaye Wade mu ngi fee. Uh-huh. bu waxee ak Macky na Moustapha Niass tontu ko ah. waaye xale yoo xam ne Ablaye mun na leen jur bu ñu ko tontu ndax mag dañu ko ormal mag dañu koy ormal eh. réew boo duñu ormal mag hmm. jàmm du fa wat billaahi maa wax loolu Macky Sall eh. bu Ablaye Wade di ko wax lu xam ne naka su dul noonu la. Eh. na danso ko tontu war a Moustapha Niass ndax ñoo maase. Hmm. waaye xale yu xonk cur. Eh. di wax ak mag boo xam ne mën leen maam. Eh. loolu baaxul. Ah, hmm. ma tënk ko ci soose ndax wax bi dafa gudd. Ah. Sirilinga. Ayengo. naa la kay ke sonko ko. ala mana caara kere la la barka. alaaji abdoul si al sëriñ mbay si mansour tiwaawan alani eh. moole ko eh. iñolani eh. soosengan ko manin ko ñonin ko le xoso bolle na yokona bolle moconana bolle kiyanakana bolle bolle ñaami ñaame ñonika bonkili ñabali ñabali kun kundaane maane maane saane saane faati faati jaata jaata koli koli bojan moone ko saane ko bojan bojani maane mbégte ak bu mag di nuyu képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show waaye nag di gërëm bu baax nee ni fans club Kouthia Show ñoom Bas Thiam góoru Mbarika Thiam nekk ca Kaolack de la part de Rabi Mam Diarra Mbow Bakke Ba ek ak Abdou Mbow de la part de Rabi ak Assou mbay et toute la famille joxaane ñoom ñu nga foofu euh, ca Kaolack di am mbégte contentement di ànd ak ñoom ci soppi bi nga xam ne sopp nañ ko Ami Soumaré nekk RFM la grand présentatrice sama xarit la nekk foofu ca RFM yàlla ko yàlla defal jàmm bàyyu koko yaayu as Cheikh Tidiane maa ngi koy nuyu bu baax Cheikh Tidiane Aydara sama sama doom la maa ngi koy nuyu di nuyu tamit yaay ji Ami Soumaré bu nekk ca RFM jili bu site euh, percussionniste la moom mooy tëggal Siteu ñu ngi koy nuyu ak Abdou sekk tamit euh, bu Siteu mooy ànd ak moom tamit di nuyu Awa nekk ci États-Unis doomu Euh, kenn daal jàlloo ko ki ñu ko jox moom mooy suñu xarit bi nga xam ne moom mooy mbay Ali Ndiaye nekk ca yëmbal di artiste tailleur ñu ngi koy nuyu ak chérim ñu naan ko cabandiir madame Ndiaye suñu yaay di maman Binta Sow nuyu nañ ko Nene saw di chéri Bas Fatima euh, Fatma chéri euh, Babacar ay Seck chéri Ran Ba Khady Ndiaye Ba doomu Ali Ndiaye la ñu ngi koy nuyu grand comédien maître Ali nag suñu xarit la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram gàmmu Mbour tefes suñu baay sang Mamadou Guèye le 6 mai la yan yàlla may ñu egg ca jàmm waaye du ñuy tamit ñoom ah, mama Mama ñoom Balla gay junior Feu Rouge Siteu bu laal Kona ak euh, Kona nag moom mooy raqu capitaine PK ñu ngi koy nuyu comment dëkk foofu ci TP Tivaouane Peulh suñu xarit la ñoom ñëpp nag ay taalibe Serigne euh, Sidi Mbacke alxuraan nañu nekk ca jàmm gën jak saaw Amadou Diallo lom taalibe moom ngi nekk euh, garrakoor sëñ bi la ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram ak waa jàpp rue 3 Baye sëñ Sidi Euh, Mbàkke alxuraan yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér yaram waaye tamit euh, di nuyu euh, képp koo xam ne yaa ngi dëkk ca dëkk ba nga xam ne mooy Kaymoor gàmmu Serigne Jim Ndiaye bu Kaymoor su la digal di xalif Medina Baye Medina Baye ak imam Cheikh bu Medina baay ñoom ñëpp nag ñoo joxe ndigal boobu nga xam ne la 15 avril ci la gàmmu Kaymoor département de Nioro arrondissement de Medina Sabax 8 heures lay dem ba 14h ñu fay jàng alxuraan bu 18h cérémonie officielle ñi nga xam ne nag ñoo yor organisation du président organisation El Hadj Jim Cissé ak El Hadj Abdoulaye Guèye ñu ngi woo nag président de la république ak soxnam ñoom ñëpp ndax bés bu la boo xam ne nag gàmm gu mag la te Kaymoor nag wax dëgg yàlla aajoon na nag wax dëgg yàlla ñu defal leen ay tëli pour nit ñi mën a jaar ci yoon boobu mën a egsi fi nga xam ne nag moom mooy ca dëkk boobu ndax dëkk bu am solo la te sëñ mu ngi ñaan bépp taalibe la 15 daal ñoom ñëpp ñu daal di ñëw bu leen fàtte ne réalisation bi mbokk yi dañuy delluwaat di gërëm suñu xarit Serigne Mamadou Diop euh, borom gànjool dëkk ca Médina yàlla na ko yàlla defal jàmm rue 41 yàlla may ko euh, ndam ci lépp loo xam ne mu ngi koy def ndax nit ku yàlla baaxal la borom yi nga xam ne nag euh, nit ñi nga xam ne nag ay soppeem nañu ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom Serigne Mamadou Diop borom gànjool dëkk ca Médina mbokk yi ki ñuy seeti mooy Macky Sall ba mu génnee démb Tivaouane def na déclaration ñu seeti Macky Maki Amadou Abdou Maki Kumba Jaara Mayra eh. Maki Amadou Abdou oh. Maki Kumba Jaara Mayra Macky Amadou Abdoul Boubou Touba Macky Coumba Diarra Mayra eh Macky Amadou Abdoul Boubou Touba Macky Coumba Diarra Mayra Bouya Macky Amadou Abdoul Boubou Touba Macky Coumba Diarra Mayra Bouya Salaamaaleykum salaamaaleykum Waaleykum salaam Le président intellectuel Sall Ngari Le président de l'espoir qui est né après les jeux de Paris wallaay. le maa ngi am mbégte ak contentement bu rëy. soo leen gisee tey may wax ak yéen. Hmm. ci baat bu sedd guy bi mel na glace. Mhm. mooy dama ñëw fii nga xam ne mooy dëkk bu tedd bi di Tiwaawan. Mhm. suma papa Abdoul Aziz Al Amin. ak suma papa Serigne Mbaye Sy Mansour. daa dee tëj man ñaari waxtu waxtaan ak man ci li nga xam ne moom mooy réew mi ni muy doxee ak jàmm ji nga xam ne ñu ngi koy sakku pour ñu jëm ko doxal Sénégal mu jëm kanam ma xam ne ne mag mën naa bàyyi ci réew lañ fa waxtaanee yëpp nag duma ko génn ci mbedd mi waaye xam naa li nga xam ne moom lañ ma wax maa ngi talal sama loxo ñi nga xam ne yaakaar nañu ne bu ñu àndee liggéey Sénégal mu jëm kanam ñu bokk ko liggéey eh, ko ɗo wiyete ɓamtare makki amadou abdoul boubou yawti aali eliman banna lamtore seydi sall wallahi wallahi suma yaram dafa daw bi ñu waxtaane ba waxtaan bi sori ma xam ne nit nit rek la te jàmm moo gën ay ndax nit mënul am jàmm mënul nekk ci bànneex te amul jàmm ndax jàmm mooy jur bànneex yaali googu de tey nag damay wax waa Sénégal que du yàgg sax ci ay fan yu néew dinaa tëggaat wara ma tëggaat li nga xam ne moom mooy gouvernement bi defar remaniement dootul yàgg sax dinaa changer gouvernement bi am lu ma ci yokk am lu ma wàññi am ñu ma génn am ñu ma dugal am ñu ma daaj am ñu ma génn rax ci dolli yoo sal ngaari lam tooro tëgib tëgib ya ko de adama ah, aysa iliman ali samba demba muxtaar wallahi halwar wallahi wallahi yawma anaka gonda ma la demal loolu moom moo ji baaba moo ji bineel boneta boneta boneta maa ngi leen di gërëm di leen sant waaye di leen xamal ne dëkk bi fu mu ne nii jàmm rek moo fi war a am jàmm rek moo war a nekk maa ngi jagalu ci ñi nga xam ne dañu yaakaar na dama leen tooñ ku ma ci tooñ tamit maa ngi lay baalu àq ñi xam ne tamit tooñ nañ ma baal naa leen àq yàlla boole baal man de parce que tey jàpp naa sama bopp nit koo xam ne ku dul juum amul neew ma dama jum waaye d'accord naa ibbi sama xol te adduna du dara adduna wala nan konon banndiraaɓe sehlaɓe mbiɗaala noon jukoral jaboral dafa ñafande tamede gewo jingo de gewo yitiri fiɓe alay sitta gelaje mbaɗe umo ko kaadi ndiyam kaadi mungatu dama mungatu dama wankala yobota wankala ñamlo aduna amul solo léegi laa koy xam ma jóge taawal aduna amul solo léegi laa koy xam ca suuf rafetul ca kaw la yànge parce que yow ki yàlla Mamadou waay waay ca suuf rafetul kaw la yan yee barke yontu yàlla Mamadou bu leen ma fecc loo eh, bu leen ma fecc loo eh, nga ne lan yow ay eh, waay bu ma fecc loo ay Hey, no! am ñu mbégte ak contentement bu mag di gërëm Papis Faye et le groupe Teranga groupe ñoom nag jour Pâques la ñuy def seen premier anniversaire di wax nag képp koo xam ne yaa ngi dëkk ca Sicap ja Saaw jàmm gën nañ ca teew ndax am na solo trop na ci invité mbokk artistes yëpp ñoom ku Kouthia Ness ak képp koo xam ne euh, mbër nga foofu ca jàmm gën Sicap Mbao jàmm gën Lamsar moom ci boppam Wally Seck góor gi Ndiaye Pape Diouf Pape Copet ñoom ñëpp nag leen ci invité moo taxit ñu fas yéene ko gunge ci premier anniversaire moom Papis Faye ca yëngu leen lay amee kon nag yàlla yàlla may ñu egg ci jàmm di gërëm ñëpp mbokk yi nag dañuy dem tàggatoo ak yéen ki nekkoon ci réalisation bi euh, xam ngeen ko tonton mag la feggoog toog ci son bi yaaw gervé benn jëmm ak euh, ñaari caméra ñu seeti ko ci li nga xam ne nag moom mooy chocolat bi ak carême arekaar bi te kenn nekku fi ah arekaar boo xam ne de ah yii moom bokkul ci civilisation dara ñoo di teg ay potu potu yi kenn xamul potu lan la xaaral kaar bi ñëw ma dem sama yoon man bàyyi ma xool ko ndax du bomb ndax dëkk bi neexatul de Sokola est-ce amuñu est-ce que amuñu may bëgg a topp ma pour jéem ma mbalak xam nga ne damaa ne ci karam gi moo tax nga ne jojju taxaw di ma xool nii yow ni nga neexee yow neex rek nga def moo tax man de soo gisee man ma nga gënal ma beurre ak confiture yàlla rek moo ko xam ndax fromage sax dafa xaw a forox te xaw sef xorom waaye yow ni nga neexee nii soo dangee neex boo oyofee neex te balaa nga balaa ma gën a bëgg rek balaa ngay toq day yàgg lool buñ la deful diwlin doo gaaw a wàcc mukk Sokola yow noo sant yow Sokola Njaay war a mbay war a Sokola Juuf xam naa ne sama kal nga yow mii sama kal nga man man Diouf laa sant yow fay nga sant yow mii sokolaa waaye maa ngi lay xamal dara yow fayeen bi sokolaa fay bos boo dof dof loo rek ba jéem a toq waxuma taxal sax waaye nga toq sama yére rek am nga problème yow laay waxal xanaa munoo tontu balaa ngay tontu rek ni sa ni sa xamile la bay toqamte ko si biir gémmiñ te ni nga neexee def ci mburu tàkkusaan diggante 6 heures 7 heures ba muy ba mu ne xojom xojom rek ba ba des benn lancer rek nga def ci ndox mu ne uy uy uy uy te ci ngalax nga gën a neexee nag ndax ticket gi bi léegi dafay yàqu fexeel rek ba toq sama kaw nga xool da te da nga sob ni ngay taxalaatee yow ya bari is xanaa ku lay door sax di nga fayu damay xaar nga taqal ma rek nga xool yow xanaa munoo maa taqal yow munoo yow doo wadd yow nit ki di di la xas yaay nii waddal nga xool taqal ma yow munoo maa taqal xanaa taqal ma nga xool danga mer nii génnal dangay génn man de damay xaar rek nga topp kuddi gi rek te bul ko wàcc oui yaa am jom nag def ko fexeel ba taqal ma nga xool oui sama ay. way kofi xewa yow mii lay ba taxal ma waaye bul mer waay bu topp sa jikko wadal fexeel ba taxal ma rek nga xool yaa ma gënal beer yaa ma gënal fromage bul mer waaye yow fexeel ba taxal ma fexe ba takkal ma ngir yàlla yow tamit takkal ma nga xool nga ba ba nga takkal ma fexeel ba tax takkal sax waaye dem ma bàyyi ba takkal ma nga xool maa ngi xaar ba nga takkal takkal waaye takkal ma waay